ne Macky li la wara a def indi li la wara def donc position PDS leer na du du du xam nga PDS sax ñu ne la coalition bu day tas dañuy ñaan mu tas PDS dañ bu ko dal si au pouvoir par la petite porte li ñuy ñaan yalla tay li ñuy ñaan yalla tay moy coalition bi tas suñu xëyee suñu julli suba gon gu guddi beccëk loolu la ñuy ñaan yalla ñan ñoo nek PDS tay donc position PDS loolu la ça dire que ñu wax ko mhm. mu leer sénégalais xam ko que le PDS tay sa mhm. position mhm.

man lima gis moy Idi dafa neubul paak bi da ko gaddu yéen ngeen neubul paak parce amna am nañu ne amna ay RG yo xamni jox nañ len pour ñu def ay enquête pour localité ngeen mëna a sen seen bopp. ci localité Idi di gañe Idi xam nga Idi ñun c'est un responsable d'envergure locale ties rek la doon gañe ak sagal kap ñak na sagal kap mm. ties la dese ñun ciof nañ fatik ciof Fuuta nak ci gox yëpp ya ngi donc lool jomm lu ñu xam nga tay lu ñu lu ñu te li ma wax rek ci PDS la ngeen ci bàyyi xel di ñëw guloo fenn PDS baax na nekk fépp moo gën nekk fenn kekk taxawul fenn non taxaw fenn kekk rok rek nekk fépp moo ko gën ñun yàlla mi dara wul dogal ña mm-hmm. ak suñuy farlu yaa ngi dégg ñu nekk fépp tey Sénégal te biñ juddoo yàggul di ci sant yàlla di ci gërëm Sénégalais yi kon APR ragalul demal boppam ci local non APR xam nga dafa am lu am solo mooy lu kenn mun ñaar ñoo ko dàq li ñoo fait la force amul benn dëkk ci àddina bu benn parti di jiite parti politique yi ñoo bari Sénégal dañu war a dem un bloc parce que nous avons 12 millions de Sénégalais bon y a 200 partis politiques qui ont créé sa parti loolu mënut a nekk dañoon dem tey ba créer le statut de chef de l'opposition C'est la base de la représentation parlementaire ou en tout cas du poids politique des différentes formations politiques loolu war nañ dem ba am ko ay bloc yu visibilité am lisibilité ci seen politique bi. lu ngeen ci xaar seen parti répond critères yooyu. wala parce que tollu bu leen foofu loolu mun na nekk. te ñun dinañ bokk ci ay propositions am nañ ko defal président Macky au niveau des jeunes loolu dinañ ci waxtaan bu baax parce que je pense que lu am solo la. maintenant fi nga xam ne bëggoon naa ci waxtuuti mooy xam nga li sama waa ji wax léegi gis nga. élection kenn mënatu ko sàcc Sénégal amul. te avant 2012 daan nañ ko wax nit ñu naan non am na benn logiciel turc xaw ma lan ay non chaque jour nit ñu woo ma leen fii kenn mu parce que waxtaanoon nañ ci ñu bari ay ñoom Madior Fall ñoo xam seen xam-xam daf ci màcc ñu wax ñu leer wa ñu ay firnde xam nga si bu buñ mënoon sàcc élection Cheikh Yane si du dëkk Ndar organiser élection perte Ndar suñ mënoon sàcc élection Ousmane Ngom def na ci lu man te terewul PDS perte donc loolu mënut a am li am solo mooy ki ko dénk mën na ko attan na ko. léegi lu tax yéen du ngeen def li dal xelu nit ñi nga xam ne ak i la woon. ngeen bàyyi ko fi xam na ñun bon dañu am suñu programme bopp. ànd ak suñuy xarit ñoom ñu am lu ñuy yokkal lu jële lu jóge ci assises nationales yi ñu xaatim assises yi am ay réserve yu ñu def réserve yu ñu defoon Sénat bi dañ digg woon ne day am bu yàlla dogalee ñuy agsi ci nguur gi dindi nañu ko te pourtant li ñu digg ci la bokk taxaw ne nañu wàññi suñu mandat donc loolu day wane que suñu intérêt taxuñu jóg waaye intérêt askan wi moo ñu tax a jóg. maintenant élément beneen élément d' intervention ma ci yokk mooy euh, li li sama xarit wax sànq mooy document boobu ngeen di wax ah man document boobu gisuma ko document boobu ngay wax document de politique économique et sociale xaw fu mu fu mu leen fu mu leen réer gisuma ko li ma gis mooy programme yoonu yokkute bi ñu woon Sénégalais yi ñu ànd ci. Mm-hmm. ak enrichissement biñ ñu def jële ko ci assise nationale mm-hmm. tay, bo xolé ci dans tous les secteurs de la vie socio-économique du Sénégal muy ci wal éducation bi ñu ñëw ñëpp xam nañ ne année blanche mo doon am la base d'une démarche inclusive et participative yalla may nañu ñu indi saafara ci loolu mm-hmm. teg nañ commission ñi waxtaan ci enseignement supérieur ñi ngi wax ay université boo nañ recteur La Balie mhm. dans le domaine de la santé c'est pareil mhm. bon 2014 gratuitement, am euh, pour les enfants de 0 à 5 ans docteur te le programme yoonu yokkute la d'accord loolu mhm. dans le domaine de la pêche les licences euh, qui de jox les navires là étrangers là c'est un acquis de taille la renégociation des contrats euh, miniers d'accord ce que l'État perdait loolu c'est un acquis de taille. loolu yëpp ci nopp. application bi. la la diminution de l'impôt sur les revenus. Ah. une augmentation effective sur les salaires de 15 à quatre 000 francs. c'est un plus. mu impôt sur les sociétés bon moo domaine beau jël taille léegi xaaral ñu domaine beau jël ma ma <laughs> domaine beau jël taille taille dans la vie socio-économique du Sénégal muy pêche muy éducation muy mine. muy mooy emploi xam na la fa nekk ñoom amuñu woon sax budget pour fay ay salaire lu woon seen priorité agriculture la preuve agriculture agriculture bu ñuy agsi mm-hmm. amuloon benn couverture budgétaire pour agriculture pour agriculture boobu volet la pour dellu si léegi voilà léegi tout léegi docteur euh, Malick Diop ci côté boobu nga xam ne côté politique bi Birame abordé na ko léegi nga xam ne wax na fi lu am solo nee na ànd boo gis aussi dafa am durée de vie maanaam dina dem ba mu yàgg mu jeex mu am lu ko tasaare ak yooyu

dafa am ay euh, mbir yoo xam ne waaw mbir yoo xam wax nañ ko euh, ma ma bëgg ko mm-hmm. parce que tamit réew dafa am nu muy doxee tu sais que administration sénégalaise mais également de 1960 à aujourd'hui ce qui s'est fait dans l'état du Sénégal lu ci bëri moom la ñu utiliser fi mu te da ngay am na yu bëri yoo xam ne ay réflexion la c'est pas les politiques ñoo ko def parce qu'on a une très très bonne administration premièrement mais également dans les différents secteurs que muy mbirum jàng ak jàngale mbirum faj mbirum environnement et cetera am na ñu xarañ ñoo xam ne ngi tous les jours pour l'État du Sénégal ci li ñu liggéey nag lépp luñ fi bàyyi rek acquis la parce que dafa am lu ñu naan continuité de l'État loolu xam nga ko donc su ngeen amee su ngeen euh, defaree document de politique économique et sociale mais c'est très bien parce que loolu la ñu soxla da ngeen di jëf jëye yu bari mais à côté de cela am na yoo xam ne tamit yu baax def ngeen ko fi donc loolu bu amee ñun dans le cadre de la continuité de la donc il continue. continuer mais maintenant, aujourd'hui il y a la stratégie nationale de développement économique et social c'est sur cette base aujourd'hui que nous nous déroulons à côté de ça tu es au courant confection plan émergence c'est la planification des plans émergence vous dina peut-être sur une vingtaine d'années quel que soit li xew quel que soit qui ñew plan émergence plan dina nekk li ñu naan genre tableau de bord qui xamné ne dina ci liggéey su fekkee ne intelligence donc da fay lu am solo ñu rappeler ko euh, également bu ñu naan assise nationale ak le fait que le CNRI ñew di def des euh, des consultations citoyennes mais lolo ça veut dire que nous conforté que les assises nationales ni ñu fonctionner également comme euh, comme acquis acquis qui dañ consolider d'autant plus que c'est Amadou makhtar mom donc yow ñu conforté ci wax ci li nga wax man dafa am ci li nga wax da ngay nga ne ak Khafor de 2000 à 2012 lan ngeen def ci il faut me dire aujourd'hui il faut qu'il ñaar yi ngeen fi nekk lan ngeen def pour wa Géejawaay yaa Pikine wa wa wa wa nim nimza et cetera vous n'avez rien fait defu dara approche be baxulone parce que da ngeen don manque di ngeen daan pour rien le le peu de budget bi leen dese parce que ay Italie où li ngeen ñu facturé tunnel à 9 milliards 100 mètres da facturez ñu les travaux de euh, l'ANOSI à 471 milliards etc. donc loolu moo nekkoon une priorité, priorité ngeen fàtte pendant 12 ans nous nga été ne ñi mais ce qui s'est passé période 2012 juste après l'alternance mais c'est une chose extraordinaire mais nous ñi parce que ce que Biram n'a pas rappelé affaire au Sénat affaire au Sénat c'était 100 hommes politiques qui ont peut-être 90% à 90%. Benno Bokk Yaakaar la ils allaient être dans une chambre appelée le Sénat mbënd mi le président de la République décidait... ne c'est une priorité nationale nañu teg fële affaire politique biram une grande partie des, hommes politiques qui sont de Bernard Bokoya étaient contre ça. Il a pris cette décision pour Dougal loolu dans le cadre de la planification c'est 10 milliards lañ ci def le plan décennal parce que maintenant, chaque fois ngay manque rek di dem ci ñaay yi di dama manque manque Lolo, moi, jeter la poudre aux yeux des populations. Qu'est-ce qu'on peut faire Même si on a mandat de 5 ans, là, planifié qui le bon ce C'est pour ça qu'il y a eu le plan décennal sur les inondations. 900, 767 milliards sur le plan décennal avec la partie 2012-2013 partie d'urgence là, où on a 66 milliards. rennes de 2012 euh, 10 mhm. milliards de gouttes pour montrer comment dans le cadre du travail qui se fait nous ni vous vous bu fekkoon on où rek la bu politique rek il faut xam ne dañ koy gis léegi ëllëg gannaaw ëllëg dootul am parce que investissement bi nga xam ne kenn du ko gis ëpp li muy c'est la santé et l'éducation la couverture médicale universelle couverture médicale universelle sañ-sañ la il a fallu je sais pas combien d'années à Obama pour que euh, le, Congrès accepte que nous dem vers une couverture médicale universelle. Mais au Sénégal, on a osé. Dougal, d'emblée 5 milliards. Dougal, tout ce qu'il fallait pour régler un problème extrêmement important. Moi, je hypertension artérielle, ni au Sénégal avec diabète, avec insuffisance rénale chronique les insuffisances euh, rénaux chroniques ñi nga xamné doomu réew mi la mais ku ci amone problème mara day tali sur 100 personnes peut-être kenn mo ci mucc parce que amulone possibilité légui on est arrivé presque à la gratuité mais lo xamné ne la da koy investir mais kenn du ko gis mais bokoy def conviction moy tax nga koy def xeyna temps bi ñu ko wax nañ ci mbirum santé mais nañ wax ci mbirum homologation des prix mais il faut oser homologuer les prix tey on est arrivé à l'homologation ceeb sucre, diwlin boo jëlee campagne arachidière d'abord ñu am une très bonne campagne agricole dugal ci koppar yu takku. mais li nga wax ni. jaayee askan wi waxu bàyyi ma continuer bàyyi ma continuer man ceeb bi moom ci bi da ngeen di wax homologation waaye bitig yaa ngi jaay. gis nga gis nga bàyyi ma continuer parce que man li may wax. Mhm.